Eh, dañoo am gan bu mag nag dañoo am gan bu no eh, dañoo am gan bu mag

ma ne ko waa jaa ngi nii. le président. ma ne ko waa jaa ngi nii. Thank you. maanaam match bi mooy ñëw Come on, come on. Sonko le président Ousmane Sonko dafa ñëw rek marche bi yàq. ma ne ko Sonko dafa ñëw rek marche bi yàq. Woi, woi, woi. Président, son gars est bien là. Il est venu assister au mars. À côté. Son eh may leen ko mu ne. lii dafa neex dafa ñëw rek match bi yàqu. dafa ñëw rek match bi yàqu. wala eh, nga dem joué bi gënd leen balaa ñu leen di gazé fii gënd leen balaa leen di gazé. génn leen balaa ñu leen di gazé. xaaral ma woo ma ma wool police. ah. président Sonko dafa dugg rek match bi yàqu. Ah. deuxième mi-temps lañ nekk ni garde corps yi ñoo. garde corps yi lañu mëne un un zéro. waaw kon du dem taxawu ko. waaw frère naka Mana sapu di sana.

su demee rek xoolal bu kenn poussé dañ taxaw dégg nga bu kenn dem ngir yàlla yéen a taxaw. waaw génn leen hey yéen a ngi dugg si terrain bi yéen a ngi dugg si terrain bi. mën a habité pousse pour muy jàll. waaye dañuy arrêté te jàmbaar jàmbaar. waaw yéen a ngi koy arrêté ñu arrêté